askan wi nga xam ne ñoo fa yeewoo ñoom nee nañu dañu leen a fàtte dafa mel ni maanaam bokkuñu ci réew mi amul lenn loo xam ne defal nañ leen ko ngir nag saafara leen jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund am na ñenn ñu yeewoo ca gox boobee nee na ñu ñetti fan yoo xam ne maanaam gëmuñu ko bët ndax ndox mi nga xam ne maanaam moo leen génne seen kër yi ba tey ci biir journal bi nee na gox bi di yëmbal jàmm gën mbaawa sikambaawa caaro ya gox be woo nag maanaam sonn nañu ba maara détail yi yéen kaay gi di réew mi quotidien Abdoul Mbaye mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi premier ministre bu Sénégal wax na ci plan de national bi nee na nag ñii nga xam ne ñoo fi nekk maanaam dañu ko arrêté loolee moo waral njombe gi nga xam ne jamono ji am na ci banlieue bu Ndakaaru ba ci biir journal bi nee na wi nga xam ne ñooy yeewoo Tiwaawan Jaksaaw ñooñu nag dañoo baare li nga xam ne mooy autoroute à péage bi dañoo baare autoroute à péage bi maanaam kenn munta dem kenn munta dikk mbir mi nag daal di dagg témbe ba maara détaillé yéen a kaay gi nee na nag ministre bi nga xam ne moo lañ dénk kaaraange réew mi di Antoine Diome danoon ni nag maanaam moo am inondation waaye nag bi xale yi baare fi nga xam Antoine Diome dafa dévier daal di teggi jaar fi nga xam ne mooy ca route nationale baay Abdoul Mbaye nee na inondation yi du gaaw a jóg ci Sénégal ndax priorité ci boppam la Macky Sall xamal te nag li nga xam ne moo jëm ci wàllum pompage loolee du solution bi Abdoul Mbaye neex tubaab nee na Sénégal problème urbanisme la ñu am te nag priorité yi Macky Sall ci boppam moo ko xamul xam nga ku xam priorité du jël un milliard di si jënd nag am Mercedes Abdoul Mbaye nee na ku xam priorité du jël soixante milliards ak fi Sénégal di si jënd li nga xam ne nag mooy ay priorité yi feneen ma Macky Sall réunion d'urgence bi nga xam ne woote woon na ko ndeke Macky dafa meroon Macky Sall meroon na de meroon na ba maara di tali ñi nga xamante ni ñooy ay ministre ma ak ay DG ma wax leen na leen wax leen ma xew wax leen ma exactement situation bi yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Samba nee na bi nga xam ne ñoo koy wax Ousmane Sonko Khalifa Sall Karim Wade coalition boobee nag maanaam bu ñu ko taxawalee loolee nag mën naa mën a jàmmarloo ak Macky Sall waaye nag lu mooy loolu amul kenn si ñoom koo xam ne bu beroo mën naa jàmmarloo ak waa benn bokk yaakaar te ñi nga xam ne jamono ji bëggatuñu Macky Sall bu ñu soñoo na Ousmane Sonko Khalifa a ak Karim Wade daal di lëngoo lu jëm ci wàllum élection locale yi lëngoo boobee nag lu war a mën a nekk la wër te mën a jafe yéen kaay gi di réew mi ko di jeexee duñu xibaar naan ñu élection locale yi nga xam bi daan nañu koy fixé lu toll ci fukk ak juróom ci ay millions ci élection municipale yi ak fukk ak juróom ci ay millions ci élection départementale yi yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na léegi daal ñaari élection yooyu ngir na nga bokk ci il faut nga yor lu toll ci trente millions ci Sénégal ngir nga bokk ci ay élection daal force nga riche war a nag boroomu xaalis nekk ci sa ginnaaw maanaam daal lay parrainer jox la li nga xam ne mooy caution bi te loole nag ëllëg mën naa jur li nga xam demee ba yore mairie ba maanaam di dagg suuf sa di ko jox ak yeneen mbir yoo xam ne dina ci gis boppam yéene kaay gi nee na en tout cas mbir la moo xamante ni mu doy waar a doy waar la ba tey ci biir journal bi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb nee na dina bëri ay candidat yoo xam ne dinañu leen ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax élection la yoo xam ne état bu Sénégal bi nga xam ne moo koy organiser daf koy organiser ba pare bañ ñàkk élection yooyu moo tax lépp daf koo jël daal di koy calculer yéene kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim nee na wàllum dictature yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Thierno Bocoum daan nay wax ci inondation yi nee na état dafa daal di lajjee ndax lu toll ci 750 milliards la wax ne moom la ci dugal te nag ba léegi nii njaw ma ngay wéy xam bi na léegi nag li ñu koy laaj mooy xaalis boobee ana fan la ko dugal yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Aliou Sow moom nag ma ngi dànkaafu Macky ci lu jëm ci ñetteelu mandat nee na askanu Sénégal peuple ñoo war a jóg te ñoom kese rek dong ñoo mën a freiné ki nga xam ne mooy Macky Sall ndax Macky Sall aw doxinam ak aw waxinam ko gis war ñetteelu mandat la bëgg ci bopp réewum Sénégal te loole nag maanaam waruñu ko koo may mboolem yéen kaay ñu xëyeendoo yëpp sa ngéem xëy di ñu tàggee Hissène Habré mi nga xam ne ay jamono moo fi nekkoon njiitu réewum Tchad mboolem journal yi kenn ku nekk di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Hissène Habré mi fi nekkoon njiitu réewum Tchad génn na àdduna ci Sénégal yéen kaay gi nee na Hissène Habré ci atum 1990 la ñëwoon ci Sénégal ginnaaw ba mu fi dawee làqu ndax dañu ko doon toppee ca diwaanu Tchad crime contre l'humanité ak lu jëm ci wàllum xoqotal ak lu jëm ci wàllum torture yéen kaay na Abdou Diouf mi nga xam ne ba moo nekkoon njiitu réewum Sénégal moom moo nangu woon ñu indi Hissène Habré ci réewum Sénégal bi mu dikkee nag ci réew mi maanaam mayoon nañu ko jàmm féexaloon nañu ko ba ñu demee ba atum 2000 ñi nga xamante ni ñoo laro ci mbiri Hissène Habré dañoo porte plainte fii ci Sénégal yoon daal di ciy dugal loxoom jamono jooje juge Demba Kandji moo yoroon dossier bi ñu ubbi ci ab information judiciaire daal di na ko placé Hissène Habré résidence surveillée nee na nag bi ñu demee ba 2000 Abdoulaye Wade jot ci réewum Sénégal ci la Hissène Habré féexaat nandaat maanaam di gu nandaat good fine yéen kaay gi nee ñi nga xam ne nag ñuy waa ONU parlement européen ak waa union africaine ñoom nag wax na ñu Wade bataay yi ngir nag mu daal di ki nga xam ne mooy Hissène Habré wala nag ñu daal di koy jëlee Sénégal yóbbu ko Belgique loolu lépp nag Abdoulaye Wade daf koo lànkoon ba kandaar journal bi nee na en tout cas li nga xam ne Abdoulaye Wade lànkoon na ko ba tëdd ca naaj wa ci lu jëm ci mbiri Hissène Habré loolu lépp ko nangu ndax ci atum 2012 Macky Sall daat ne nangu ñu àtte Hissène la fi tekk li ne mooy nag chambre africaine extraordinaire Abdoul mbay ci biir yéen a kaay gi nee na en tout cas li am ba des daal mooy Hissène dafa tànnoon réewum Sénégal waaye nag bi mu dikkee ci réewum Sénégal dañu ko mujj trahir Fatou Hissène Habré ci biir kaso bi loolu nag mbir la moo xam ne mbir mu doy waar a doy waar la te nag état bu Sénégal maanaam seen loxo maanaam génnu ci seen loxo siddu ci ndax njabootu Hissène Habré ñoom nag yàq nañoo sàkku ngir nag ci coronavirus bi ñu daal di koy génne waaye nag état bu Sénégal dafa lànkoon sa naaj waay yéen a kaay di réew mi quotidien nee na ci Sénégal ñu koy denc waaye nag ñi nga xam na ñooy gouvernement bu Tchad ñoom nag génne nañu ab communiqué nee nañu duñu rendre hommage ki nga xam ne mooy Hissène Habré yéen a kaay gi di réew mi quotidien ci xalima ak Assane Sambou nee na autorité sénégalaise yi maanaam mënuñoo am nag conscience tranquille ci faatuk Hissène Habré loole mënta nekk ndax nag la nga xam ne moo ko waral mooy chambre africaine extraordinaire yi nga xam ne moom la ñu fi tekk maanaam uniquement ngir atte Hissène Habré loole kenn musu koo gis ci àdduna bi te nag atte bi ba mu jeexee maanaam chambre boobee dañ ko fee jëlee te Macky Sall ci boppam moom njiitu réew mi adi di ci pression internationale bi nga xam ne maanaam tegoon nañ ko ci Macky Sall ak ay organisation yuy xeex ak ak yelleefu doomu aadama maanaam ñoo teg pression Macky Sall ngir nag mu àtte ki nga xam ne mooy Hissène Habré ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien bàyyi mbir moomee wax ci suukar bu ñàkk bi nga xam ne am na jamono ji ci réewum Sénégal ñi nga xam ne nag ñooy commerçant yi ne mooy waa UNACOIS jàpp ñoom nag daan nañuy joxal bi baaraam t ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum commerce si réew yénekaay gi di réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naan ñu Hissène Habré mi nga xamante ni ay jamono nekkoon na njiitu réewum Tchad te ci atum 1990 mu ñëwoon ci réewum senegal ñu tëjee ko ci réew mi faatoo na ci réew mi tey ji la ñu koy jébbal boromam moom Hissène Habré ci armeelu Yoff yi yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex nee du corps bi danañu ko amal ci jumaay omarienne yi journal bi nee na Ndakaaru lañu koy dencee yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex nee yi nga xam ne ñoo fas yéene dem ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal woo nañ leen ngir nag ñu daal di déposé déposé seen i caution ci caisse de dépôt et de consignation yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu tey jii boo moytuwulee tribunalu Thiès dina yëngu ndax dafa am benn terrain boo xam ne piccog mbaaloo daf cee am dox diggante Serigne Moustapha Sy ak nag ay kilifa ca diiwaanu Tiwaawoon tey jii la ko tribunal bu Thiès di àtte mooy terrain bi nga xam ne fa la ñu dencoon Baye Katim Touré te ñu mujjee ko sulli terrain boobee la nag yéen kaay gi di mbaxana doonee benn gën a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu njombe am na girawali am na élément yi section de recherche yu kolobaan ñoo teg loxo benn professeur bu arabe boo xam ne dañu ko jàpp ngir nag lu jëm ci wàllum terrorisme yéen a kaay gi nee na professeur arabe boobee Amadou Diop Fall tudd ci lycée bu Barkédji département bu Linguère foofee lay jàngale yéen a kaay gi nee na da doon génn Sénégal ngir dem ca diwaanu Iran fi la ko gars yi tege loxo ci aéroport international ci chambre bi nga xam ne fa la luwe ci diwaanu a kaay gi fa transfert d'argent yoo xamante ni a kaay ndax nag politique bu dafa am noo xam ne moom la tëddee ci réew te politique bi dafa tërëti ndax Ousmane Sonko gis nañu mu def ab alliance ak Karim Wade Khalifa Sall te ñooñu ci système bi la ñu bokk waaye nag mënuñu jàpp ne Ousmane Sonko dafa daal deltu ginnaaw ci conviction yi nga xamante ni amoon na waaye nag dafa mel ni sax amutul choix ci mbir mi ay réalité politique moo ko dàpp yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu ki nga xam ne ay jamono moo fi nekkoon njiitu réewum Tchad di seen abré te mu faatu ci réewum Sénégal niki démb daan nañu koy jébbal boromam ci armeel yu Yoff yi yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu docteur Pape Amadou Ndiaye mi nga xam ne ab oftal ophtalmologue la daan nay wax ne coronavirus bi mën naa jaare ci bët yi kon gars yi bay boo ñu jël ci seeni matukaay ba tey ci biir journal bi nee na Mohamed Balde ak Ibrahima Balde ñooñee maanaam ay magarak lañ dañoo jàpp benn policier boo xam ne policier bi da leen doon laaj masque ñu jàpp policier bi dóor ko ba maara de taal Italie policier bi yóbbu na leen fa mbaxana doone benn